Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez les programmes de Salam Vision. Voici une synthèse de l'actualité au micro, Cheikh Safo. Parlons maintenant de la situation qui prévaut euh, du pays. Nous nous à Linguerre. Quatre nouveaux nés ont trouvé la mort. Euh, selon les responsables de l'hôpital Magatlo, euh, c'est toujours l'émotion et la tristesse qui règnent au niveau de cet hôpital. Une enquête a ouverte pour diligenter euh, sur cette euh, situation. La journée internationale du paludisme a été célébrée sur l'ensemble du territoire national. Et selon les responsables du de la Santé et de l'Action sociale, le Sénégal est sur la bonne est en train d'éradiquer ce fléau d'ici euh, Les populations des parcelles assainies et d'autres localités du pays haussent le ton. C'est un problème de manque d'eau potable dans certaines localités Euh, ces populations accusent euh, la Sénégalaise des eaux d'être à l'origine de toutes ces perturbations dues à l'œuvre prioritaire. Nous nous rendons à l'étranger, nous sommes bien au Tchad, le comité, national, le, le comité militaire de transition euh, s'oppose à toute négociation avec les rebelles annoncés hier, euh, disons les membres de cette transition. Enfin, en, en un grand politique euh, Cet ingénieur était l'opposant farouche du président Ange Touadéra mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk si kàllaama ko ci mbaar moo dama ñëw màggal li ñu naan journée mondiale jëmale ko si mbirum sibiru xam ngeen ni Sénégal mu si jéego yu am solo naka la ñu mën a xeexe sibiru ba mën ko fi jëlee atum 2030 askan bi yenn gox goxaan yi ñu jooy ba léegi ñàkk ndox si yenn diwaan yi ni parcelle ak li Euh, mooy cité Fadia ñàkkum ndox indi ay jafe-jafe euh, si biir askan boobu nag ñoom nag ñu ngi joxañ du baaraam xam nag ñoom ñooy waa Sénégal wala ñoom ñooy waa Sen'Eau bi nga xam nag ñoom euh, defuñu ay jéego ñu naan ndox mi si bërëb yooyu ñu ngi koy jëmale peut-être Linguère fam ñeenti tout temps nga xam ne ay lii yoo xam ne dañ ko ñu faat ñu naan Euh, mbirum courant la ñu ngi joxoñ nga xam ne ñu gynécologue yi ay infirmières yi fa newoon euh, guddi googu xam ne mooy ministère de la santé ñu koy ñaawlu bu baax Abdoulaye Diouf Sarr nee nañ ubbi enquête mu gën a gaaw euh, bitim xew la ñuy doxantu askan bi fële ca Tchad comité militaire de transition buy diri buy jiite transition xam ne doomu kii seen doomu kii jiite ñoom nag bëgguñu waxtaan nag xam mooy booy fépp yu ñoom nag euh, ñu ne ñooñu dañuy faral di indi fitna bëgguñu waxtaan ak ñoom euh, jamono bi euh, tëj ko fële ca Centrafrique benn opposant bu mag nekkoon candidat élection présidentielle bi ñu génn moo génnaat na démb di ñaan suñu mbokku centrafricain yi ñu ànd ak daal ki doon mooy di président centrafricain mbokk yi jàmm jàmm yeneen xabaar incha allah ba ëllëg.